gal di ko gërëm di ko bàkk di ñaan borom bi taala wa tabaarak jéggal nu sunuy njuumteeki sunuy rëcc-rëcc noo ngi julli tey selmal ci ar rasulu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa di ko ñaanal jàmm moom ak i saxaabaam ak taabiina lahu bi ihsaanin ila yawmi ddin mbokki jullit yi sunu xutba tey mi ngi jëm ci al awlaadu amaanatun wa masuuliya muy njaboot gi njaboot gi ñu yàlla dénk dénk ko bépp jullit na bàyyi xel ni ndénkaane la waaye responsabilité bu mag la ci kanamu borom bi taala wa tabaarak rawatina yowmal qiyaama mbokk bokk na ci xéewal bi nga xam ni dafa waral ci ñun ñu koy sante yàlla waxtu wu nekk waaye di ko sàmm di ko toppatoo di ko xool te koy bàyyi xel jamono bu nekk te sàmm gi su yiwee doon mbégtem àdduna di mbégtem àllaaxira su yiwadee mën naa doon mbégtem àdduna waaye doon nattu àllaaxira yàlla nañ ci yàlla xéewal musal mbokk jullit yi ay doom suñu baaxee jëf juy continuer lay doon ba yow wayjur bi boo duggee bàmmeel daf la fay fekk di la jëriñ waaye bu ñu yiwadee kadalik mooy du la jëriñ àddina waaye du la jëriñ allaaxira yonent bi sallallahu alayhi wa wax na ci xadiisu imam muslim mu ne doomu aadama su génnee àdduna ay bunti tuyaabaam dafay tëj ba mu des ñett ñett rek la yàllay libéré bunt yooyu di kontiné di la jëriñ bi ci jiitu bokk na ci sadaqatun jaariya mooy sarax woo xam ni danga ko def mu sax continuer te du dagg loolu ñëw nañ ci ay yoon lu mel ni tabaxi daara gasi teen jëmbat ay garab di dimbale nit ñi mu ne aw ilmun yuntafa bi walla xam-xam boo amoon di ko joxe ay nit di ko jëriñoo fii ci àdduna nee na njëriñ loolee danga nga ciy am comme ñoom nañu cay amee waaye mu ne walla doom ju baax doom ju baax joo xam ni daf lay ñaanal te xam ngeen ni doom bu baax dafa bokk ci fàgguteef yi way jur yiy fàggu soo amee doom ju baax ju ragal yàlla suy jaamu yàlla di la ñaanal loolee daf lay fekk ci sa bàmmeel kon soo amee doomi safaan jàppal ni bunt ba nga waroon a am tëju na xanaa yàlla may la yeneen doom yoo xamante ni baax nañ mbokk yi wayjur yi il faut ñu bàyyiwaat xel responsabilité yi nekk ci seen kanam ndax bu njaboot ji baaxul fitna day am ndax dund ga day yàqu njëriñ la dafay dog noona lay melti seeni way jur way jur yi bu ñu sàgganee responsabilité bi leen yàlla jox ak ndënkaan li mu leen jox nanu yëg ni doom du pour bànneex waaye doom dafa nekk ngir xeex ngir tabax ndax yowmal qiyaam dañu la koy laaj yow bépp way jur te yàlla kat subhanahu wa taala dafa jël yaruk doom mbaaxuk doom teg ko ci ay waggi ñaari way jur maanaam doom mbaaxam ak yarom dafay dellu ci mbaggi ñaari way ñaari way jur yi la leen war ci tabax ci defar su ñu ko defaree fa lillahi su suñu ko sàgganee nattu lay doon bu mag a mag wor seen bopp wor seen diine wor seen borom loolu moo tax borom bi taala ne ay yéen ñi gëm yàlla bu leen wor yàlla bu leen wor yonent bi sallallahu alayhi wa waaye bu leen wor seeni kóllëre wor yàlla mooy li mu la sant nga bañ koo def wor yonent bi mooy li mu la digal nga bañ koo def waaye wor sa kóllëre mooy lu ñu la wax ni danañ la ko laaj yowmal qiyaam soo ko sàgganee fii ba yowmal qiyaam da yëg ni ndénkaane lañu la joxoon sànq nga ko borom bi teg ci ne na ngeen xam ni seen doom yii ak alal ji ngeen di ut borom bi ne fitna dong la uti doom bàyyi leen ñu mel ni leen neex wuti alal wala utee ko ni leen neex na ngeen yëg ni fitna la fii ci àdduna waaye fitna la ca àllaaxira boroom xam-xam yi nee nañu li tax yàlla subhaanahu wa ne xam leen ni seen alal ak seeni doom fitna la mooy li mu bëgg a wax mooy kon góor góorlu leen ba bu leen wor yàlla ci seeni doom ndax yàlla subhaanahu wa bi mu ñuy joxi doom daf ñu leen a jox ñu sell laab indaale ngëm kon doom boobu bu ñu ko sàgganee ba fii ci àdduna mu màgg nekk ku bon loolu il faut mu am responsabilité bu dellu ci papa waaye dellu ci yaay ndax papa na mu waroon a taxawee taxawee na ko ndax yaay na mu waroon a taxawee taxawee na ko te taxawaay boobu du taxawaayu kese nag pour dundal jox mu lekk jox mu naan rek déedéet waaye taxawaay boobu mooy dañoo soxla ñaari mbir nga yar ko ci sa doom nga def ko ci moom fexeel ba jëmmam jëmmam na ko sàmm waaye ruuxam na ko sàmm ñu bari ci nag li tax ñu wor seen bopp ci seen njaboot mooy dañoo topp yariinu tubaab yariinu Occident nga xam ni Occident ñoom njaboot li ñu ci xam mooy yar jëmm bi na lekk na naan na wér lu mu bëgg a def na ko def ñooñu noonu la ñu jàppee yar or yow sa borom daf laa wax ni li ëpp solo nga di ko jëmbat ci sa biir doom na nekk ruuxam nga tabax ko tabax ruuxam mooy nga fexe ba diine nga jëmbat ko ci moom te loolu avant moo juddu la ak bi mu juddoo nga màgg àndal ak moom ci noone noona la ñuy dimbalee doom nga xamante ni fexe nga ba utal ko yaay ju baax waaye fexe nga ba góor góorgóorlu ya war ci moom ak yëla diina sant nga di ko def waaye fexe nag ba mettit bi mooy fi mu juddoo ba ba muy majeur loolu sa responsabilité la leneen lu mu fi def ci diggante bi rekk yëgal ni yow sël yaay responsable bi moom bu xësee ba majeur nag leneen lu mu mënti dugg la ca des mbiri boppam lay doon moo tax borom bi nee na kon bu leen wor seeni kóllëre kóllëre gi kat yowmal qiyaam yàlla dañu koy laajje yowmal qiyaam mbokk yi ku nekk ci yooy jur yi na nga xalaat na nga ku bis dana ñëw ñu exposé ñu ci kanamu borom bi taala wa way jur bu nekk da nga taxaw ci kanamu yàlla say doom taxaw say soxna taxaw ñu ne waqifuhum innahum mas'uluun nañu leen taxawal ndax kat dañu leen di laaj te laaj bi mbokk bokk na ci doom ji la yàlla jox bi muy ñëw fi yow nekkoon ku indaale diine nga sàgganee ko ba mu mel neneen kooku yàlla dana la ko laaj waaye danga ci tontu mbokk yi muy jotaay bu metti ci bépp wayjur ndax war a taxaw ak borom bi taala wa tabaarak war a nettali sa doom fi nga jaar ak moom kooku mbokk yi lu jàpp lu mata bàyyi xel la léeg-léeg nag mën ngaa taxaw ci la nga war a taxawee walla taxawaay bi nga sàgganti mu am lu am su boobaa comme lala war def nga ko la ca des mbirum yàlla lay doon mbokk yi loolee moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ñu ci xadiis ibnu umar ne kullukum raa'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi nee na kenn ku nekk ci yéen sàmm la sàmm bu nekk danañ la laaj la nga sàmmoon kon am doom du lu ñuy bëgge di ca kontaan waaye lu ñu war a tiiteel la mbokk yi ci yàlla xam ngeen ni dafa bokk ci yërmande yàlla mu dimbale ñu ba doom buy juddu day indaale ngëm ngëm googu muy indaale nag yow wayjur bi danga cee war a veiller danga nga cee war a taxaw waruloo ko sàgganee rawatina wayjur bu jigéen ndax way wayjur bu jigéen liggéey bi ëpp ci doom yow yaa koy def yaa ci war a gën a sonn yaa ci war a gën a taxaw sa doom munoo koo am rek bàyyee ko mbindaan mi walla ngay liggéey di ko bàyyi ci kër gi ñeneen di taxaw ci wetam kon li la gënal mooy sa àdduna nga uti nga bàyyi sa doom lu ci bëri nag bu amee mooy sa doom yowmal qiyaam boo ñëwee da nga ca fekk lu la metti wala fii ci àdduna di nga ci fekk lu la metti loolu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ñu ko wax ne kullu mawludin yuuladu ala alfitra fa abawaahu yuhawwidaani aw yunassiraani aw yumajjisaani nee na bépp doom bu juddu dafay indaale laab dafay indaale ngëm kon yonent bi nee na <coughs> xale buy juddu day indaale ngëm kon lan moo ci des ci way jur bi mu fexe mu suuxatal ko ngëm loolu jëmbatal ko ngëm loolu tabaxal ko ngëm loolu ba ruuxam nekk ruux boo xam ni day dund diine te loolu xale bi da ko war a gis ci pàppam di ko gis ci yaayam di ko dund ci kër gi di ko dund ci école ba dund ko ci société bi loolu xale bi su ko amee da ngay gis ni mu daal di nekk xale boo xamante ni ngëmam day continuer dara du ko këf waaye bu fekkee loolu amul da ngay fekk xale bi li yonent bi wax ne bàyyi mooy jël doom soppi ko def ko mu yore jikkoy yahuud wala mu def ko mu yore jikkoy nasaara wala mu yore jikkoy saay-saay kon sa doom nu mu mel rekk yëgal ni mbuus la moo xamante ni ndox ma ca nekk moom mooy senn te noonu la ñu ko yonent bi sallallahu alayhi wa waxoon kon way jur yi nanu bàyyi xel bu baax njaboot gi nattu la boo xamante ni wallaahi jar naa bàyyi xel bokk na ci nag li gën a metti mooy wayjur sàgganee ak njabootam comme nii mu xewee ci jamono léegi nga xam ni bokk na ci expression sénégalaise yu bari mooy njaboot gi léegi njabootu kanaara la maanaam dañuy jiitu nga topp ci loolu ñu ngi ko jëlee bitim réew mooy bitim réew dañoo jël xale jox ko privilège yëpp ba libéré ko ci lim bëgg a def lim bëgg a wax fi mu bëgg a jaar mu mel ni yow wayjur bi amoo ci benn responsabilité amoo ci benn jubbanti kon loolu wayjur yi nanu ko bàyyi xel yow wayjur yow yaay fàkkal sa doom yoonu àjjana walla nga fàkkal ko yoonu safara wal iyaazu billah wayjur bu nekk àdduna bi tool la boo xam ni mooy sa doom da koy ruuj mën a ji am meññent mu baax walla nga seetaan ko tool bi të nga am meññent mu bon kon yoon bi sa doom di jaar ba baax yow yaa koy tabax il faut nga sonn loolu mooy ruuj mi dangay fexe sa doom taxaw ci ci bépp taxawaay nag ànd ak taxaw bu dëgër ci wetam bu ànd ak yërmande di ko yar di ko jubbanti di ko xamal diine di ko contrôler tey muñ yi am loolu mooy coono bi nekk ci fàkkal doom yoonu àjjana ndax xam ngeen ni yoonu àjjana yonent bi sallallahu alayhi wa nee na yoon bu bari ay pakk la waaye boo ko seetaanee ci li ko neex walla ni àdduna bëgge walla ni jamono xewee nga seetaan ko fexe nga daal mi ngi lekk mi ngi naan mooy yaa ko fàkkal yoonu safara yoon boobu nag moo gën a yomb ci papa moo gën a yomb ci yaay ndax doom lay doon boo xam ne sa yoon nekku ci yow li ngay sóor ndax mi ngi lekk mi ngi naan ndax mi ngi ànd ak wér-gi-yaram su loolu amee rek yow pour yow way jur bi yow responsabilité jeex na léegi moom moo ci des mbokk yi fekk di loolu borom bi taala wa tabaarak ne yaa ayuha alladina amanu qu anfusakum wa ahlikum naara ay yéen ñi ne gëm ngeen yàlla fegal leen seen bopp safara yow wayjur bi fegalal sa bopp safara waaye fegal ko sa doom qu anfusakum wa ahlikum naara ni nga war a fexe yow ba doo dem safara noonu nga war a fexe ba sa doom du dem safara loolu déggin bi mooy lan mooy ab yoon a ngi nii bu ci ay xalu safara sottiku woon booy jàll te boobu yoon rek nga am mooy di nga fexe ba coppat say tànk xool fi ngay teg sa tànk ba du daje benn xal pour nga bañ a lakk yàlla nee na noonu ngay teggee sa tànk di teg fu amul xal di tegg di teg fu amul xal noonu nga war a yëkkatee sa doom ci kaw ba moom du laal li nga bañ mu laal comme yow da bañ a laal safara bi sa responsabilité la nga fexe ba sa doom du ko laal comme yow da ba la laal liy lakkaate fexeel ba sa loolu du ko laal moo tax borom bi nee ne qu anfusakum wa ahlikum naara mbokk jullit yi kon ñaari way jur dañoo am responsabilité bu mag ci taxawu seeni doom rawatina jamono bi ñuy dund jamono bu tiitlu jamono boo xam ni dafa mel ni dañoo fàtte yàlla subhaanahu wa taala jamono bi mbokk yi yaay yu bari dañoo sàgganee seeni doom bàyyi yu bari dañoo sàgganee seeni doom léegi daal wayjur balaa jóg rek am lu ko metti ci doomam am lu ko naqari nga doog a gis mu jóg waaye li bari ci wayjur yi dangay ngay fekk ni yaay yi ñoo gën a sàggan ci côté boobu lan moo tax sàggante gi am mooy mbëggeel gu ñuy wane ci seeni doom loolu moo leen di indil jafe-jafe mbokk yi yaay su gëmut yàlla sàggan mën na koo dal bàyyi su gëmut yàlla sàggan mën na koo dal suñu jàngatee aaya bi mbokk yi te war nañ ko fàttali ko borom bi ne إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون borom bi ne ña nga xam ni gëmuñ ni danañu dajeeg man yàlla te loolu am na ci nit ñi ñii gëm nañ ko waaye dunduñ ko ñii dunduñ ko gëmuñ ko mooy dafa am ñoo xamante ni yaakaaruñ ni mukk danañu dajeeg borom bi waaye ñu jël àdduna mu def ko kërug banneex wa radu biha watma annu biha ñu jël àdduna gërëm ko lépp lu àdduna indi noo noonu la mën a demee mënuñ ci dara borom bi nee na ñooñu ak ñi nga xam ne dañoo sàggane samay aaya nee na ñooñu waa safara lañ yàlla nañ ci yàlla musal mbokki jullit yi ñun ñëpp nu bàyyi xel ne ñu ngi dund jamono bu doy waar yàlla dafa dogal loolu waroon naa ko wax sax ci kanam muy ne jamono yi dafa am benn ku ma doon waxal benn soxna dañ doon waxtaan man moom waxtaan wu sori waaye waxtaan wu gudd bu metti lool waaye yàlla dogal na gindandikoo am waxtaan wu mooy fan yi dañoo defoon benn waxtaan ci ab xale boo xam ni musicien la coow li bari lool kenn ci benn soxna yi woo ma yàlla dogal ma jël ko ay fete vers onze heures ñu doon waxtaan xëy na mu gis ni ni ma waxee ca booba mbir waruma ko woon a waxee ndax yu bari li ma ci mën a tënk rek mooy li ñu waxtaanee mooy bokk na ca ni euh, man dama soxor soxor gi mooy xale boo xam ni feeñ na ci jamono am tur lool ñépp di ko déglu di ko seetaan man ma war caa bég waaye sama jikko daal jikko yi ko soxor la waxee noonu <laughs> ma ne ko ah, yow noonu nga gisee mu naa ah, ma ne ah, demewut noonu de mu naa ma man yàlla daf maa nattu xëy na musoo maa déglu wala boo ma dégloo ci bii nga ma déglu mu ne ma déedéet dama lay déglu mu ne ma ne ko est-ce que gis nga jamono bii lépp luy yëngu ci luy yàqu diine te nu dégg ma wax ci mu ne ma aha ma ne ko kon mi ngi noonu mu ne am pourtant xale bi xam nga yaayam xam nga nangam nangam ma ne ko même bu ma ko xamee te wallahi xamuma ko ma ko wala bokk nga wax ma kan la mu doog maa waxal turu yaaye xale bi ak papam effectivement mu nekk koo xam ne xam naa ko ma ne ko waaw ndax xam bi ma xam yaayam dafa war a tekki ni su dee lu bon du ma ci wax mu ne ma noonoo mais da nga waroon wax ak yaayam wala wax ak papam ma ko bi mooy am na foo xam ni ànd naa teeg yow su fekkoon ni avant ma ciy wax xamee naa ni kii nii la kon su boobaa dinaa am beneen bunt te du tee nag ma waxee nii ay danaa wax te la ma yaakaar ne bu ma waxee ndax ñun dañuy alerte alerter mooy loo gis ne dangaa yaakaar ni jëmul fuy dimbale ci diineem du dimbale nit ci àddunaam du ko dimbale ci àllaaxira loolu nag ñu bëri ci yéen yéen da a jàpp ni ku wax rek soxor moo ko tax di wax loolu yonent yi dañ leen ko daan wax yonent yi dañ leen daan wax dañ doon ñëw di conseiller seeni xeet waaye du ñu nangu ma ko xoolal yonent yàlla Huud lan la wax nitam uballigukum risalaati rabbi wa ana lakum naasixun amin len leen yonent moomu lan lay wax ay nitam ne leen maa ngi leen di jottali li yàlla wax maa ngi leen di laabiire te jublu ci yàlla rek tax may wax kon nag su yàlla rek taxee may wax ku kontaan fa lilahi alhamd ku mer sa problème waaye mbir mi lu ñëpp bokk la lu ñu mën a waxtaanee la yonent yàlla saalix loolu la wax aw nitam daf leen wax ni laqad ablagtukum risalata rabbi wa nasaxtu lakum walakin laa tuhibuuna alnasihin ne ay nitam laaye biir naa leen jottali naa leen li yàlla wax waaye yéen ci seen bopp da ngeen a buggul benn yoon ku leen di laaye biiree di leen taxawu ngir jàpp ne ñun ñoo bokk jubluwaay ñun ñëpp xam nañ ni mu ne ma ne ko ñun ñëpp xam nañ ni dafa xaraam amul kenn ci ñun xatta musiciens yi koy def xam nañ dafa xaraam mbir la boo xamante ni tey bakkan moo ci aju ak ut àdduna ak seytaane mën la waaye amul kenn ku ci nekk lu dul xam nga ni loolee daganul mu mel ni rek li ibnu abbas wax ibnu abbas nee na alxina sawtu seytaan nee na musique baatu iblis la kon ku koy jëfandikoo yaa ngi ci loolu nga xamante ni baaxul mbokk yi ndax dana jaadu ci man walla ci yow nga gis loo xam ni xam nga ni sa borom da koo tere nga ni naan noppi ndax damaa xam way ndax loolu du nekk bunt ci bunt seytaane naan noppi ndax damaa xam magam walla damaa xam pàppam déedéet mbir mi du moom moo tax ñu di ko wax moom rek waaye ñépp ñoo ko bokk sama doom doomu keneen ak kum mën doon dañ lay teel li yàlla tere lii la te wayjur bu nekk war ngaa bëgg yowmal qiyaam nga ànd ak sa njaboot dem ajjan yal nañ ko yàlla defal defal ko mbooleem jullit ana ban yaay bu ragal yàlla ak ban papa bu ragal yàlla moom mooy nangu doomam nekk ci mi mu mu ne ah, mën a ko amul amul benn yaay bu ragal yàlla ak baay bu ragal yàlla xam diine mën a nangu wala kontaan ci doomam nekk ci milieu musique boo xamante ni dafa doy waar mu naa ma ne ko xoola borom bi taala wa tabarak li muy wax nee na walladina amanu wattabaatuhum zurriyatahum bi iman alxaqna bihim zurriyatahum wa ma alatnahum min amalihim min shay kullu mriin bima kasaba rahin borom bi nee na ñi gëm yàlla taxaw ci seen njaboot seeni doom topp leen ca doom topp leen ci mbaax boobu ndax seen doom daa tëb ne topp leen ca déedéet waaye ñoom ñoo fexe ba seen doom bëgg nañu nekk seeni doom topp leen ca yàlla nee na loolu bu amee ba seeni doom topp leen ci lu baax nee na yawmal qiyaam dama leen di boole ñoom ñëpp ñu bokk dem àjjana waaye na ngeen xam ni bakkan bu nekk la nga fàggu loole lañ lay fay xanaa xamoo wayjur bu nekk la mu war a fexe gërëm mooy na yàlla gërëm loolu muy rulu wayjur ak lu mën ci am naa fexe man ba yàlla gërëm ma waaye naa fexe ba yàlla gërëm sama doom nekkul nag ni boo ko defee da nga ko am waaye da ngay jéem la nga ndax borom bi ne ne allahu wa rasuluhu ahaq an yurduuh in kaanu muminin yàlla ak yonentam moo gën a ñu gërëm loo leen te xam nga ni yàlla gërëmul loolu yonent bi gërëmu ko kon su fekkee ne ay jullit lañu lu yàlla gërëmul waruñu koo encouragé lu yonent bi gërëmul waruñu koo encouragé xool leen yonent yàlla nuux yonent yàlla nuux doomam bon na waaye sabab ya mu war a def yëpp ku ne xam ne def na ko def na lim mën ci bi muy woote ci njabootam baax ci lépp waaye bi mu demee ba njabootam fittirlu taxut mu bàyyi même njabootam fittirlu ne ci jamonoy dee taxul nuux bàyyi loolu moo lay wan ni bi nuux di dund mi ngi def lu mu mi ngi wax lim mën ci bi mu demee ba dee taxu seen kanam teewul nuux jéem na jéem borom bi nee na nuux jamono bi nga xam ne ndox maa ngi nangu dëkk ba nuux bi gannax gi jógee mu seen doom ji nanguwul ñëw ci gaaw bi daf ko ne yaa bunayya yarkam maana wala takun maa alkaafiriin ay doom yéegal ànd ak man bul ànd ak yëfër yi yëfër yi saay-saay yi dinañ la jox alal dinañ la jox tur dinañ la jox ay étoile dinañ la indil disque d'or tur boo bëgg duñ ko am waaye gëmuñu yàlla lii ay loge ñoo koy créé ak ñu ku baax <coughs> nga topp leen ci tur leen ci alal ay doom bul topp ñooñu waaye xoolal li ko doom bi tontu qaala sa aawi ila jabalin min al doom ji ne nuux baal ma yéeg ci montagne bi yàlla mën na maa musal nuux ko laa aasima al yawma min amri llah illa man rahim doom tey kenn du mucc ku yàlla yërëm xoola nuux ci jamono boobu lu xam na ne day dem safara mais mi ngi jéem lu mu mën di tatafu di xëccoo ak doom ji pour doom ji donte benn chance la am ñëw yàlla man ko yërëm ndax yàlla ku ñëw ci moom mu ñëw ci moo tax mu ne ko laa asima al yawma min amrillah illa man rahima nee na <clears throat> tey kenn du mucc ci mbirum yàlla waaye lu dul ku yàlla yërëm bi muy wax loolu borom bi lim bëgg dana ko def borom bi ne wa xaala baynahuma al mawj fa kaane min al mugraqin duus bi dox diggante mooy vague bi doom ji lap nuux xam nañu doomam day dee doomam safaralu waaye nuux lan la wax fa qaala rabb inna bni min ahli ay yàlla sama doom ci man la bokk ci man la bokk kon nuux buggul doomam dem safara amul benn wayjur bu ko bëgg yàlla bu nu ko yàlla nettoo yàlla bu yàlla nettoo benn wayjur doomam dem safara waxantuma la ak moom muy dem safara rabbi innani min ahli wa inna waadaka alxaq yàlla sama doom ci man la bokk te li nga ma dikk xam naa ni dëgg la li nga ma dikk mooy ku ànd ak yow sa njaboot day dem àjjana nuux jàpp ni njaboot boobu kon mi ngi tàmbalee ci li mu jur kon nuux ci li mu nekk ci dëggam la waaye borom bi daf ko ni qaala yaa nuux innahu laysa min ahlik innahu amalun gayru saalih ne nuux kii nga foog ni ci yow la bokk bokkul ci yow de ndax doom ji bon la doom ju bon munta ànd ak pàppam kon mbokk yi bu ñu demee ba jamono di doxee nii jur bu nekk ci ñun maa ngi dénk sam bopp ñu góorgóorlu waat ci njaboot gi ñu bàyyiwaat xel bu baax ne yoon bii ñu nekk yoon bii nga xam ne mooy wasaa'il tawaasul ijtimaa'i nga xam ne téléphone tiktok xew na sa mën na nekk ci dara di ko def nekk ci ba am ci tur ba am ci lim bëgg ba am ci lim mën fekk yow papa ji doo ko xam yow yaay ji ko xam da ngay jékki mu éclaté sa kanam gàcce lay jur bu mag a mag kon way jur bu nekk war nay xool lu mel noonu waaye di ko bàyyi xel mbokk yi rawatina jigéen ñi mbaa xam ngeen ñi ma xamee ne musique ñun ñëpp xam nañ ni ndax musique dina yóbbu kenn jàkka déedéet ndax musique dina jaamuloo kenn yàlla déedéet waaye ñu la nee ndax musique dana sabab naan sàngara looy tontu waaw ngay wax parce que jamono bi ñuy daje ci concert wala ci dansin ba wala ci fowukaay ba préparé nañ lu mel noonu musique ndax du dajale ay jigéen ay xale yu jigéen ay xale yu góor musique ndax du yombal njaaloo waaw kon ki koy sabab moom nan la war a doon moom ki nga xam ni moo woote ñépp ñu ñëw mu sabab ñuy def lu mel noonu ndax kooku woowul nit ñi jëme leen safara wala iyaadu billah loolu mbokk yi way jur bu nekk war na koo bàyyi xel mbokk nañuy ñaanal suñuy doom baax yal na leen ko yàlla defal nañuy ñaanal suñuy doom baax yent yàlla zakariya da doon wax ni rab rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyiba innaka samiu du'a yàlla yàlla nag ma may njaboot bu baax ndax yow yàlla day kuy dégg ñaan nga kon maa ngi dénk way jur bu nekk tàmbalee ko ci man di wax ni dafa jaadu ci ñun ñuy ñaanal suñuy doom bi juddoogul ak ki judd waaye boole ci di leen xool di leen bàyyi xel waaye boole ci di am yërmande ci ñoom waaye di am tiitaang ci ñoom bu ñu gedd mukk sa doom bu mu bon ba nga gedd taxawal ndax xamul jubbanti ko defaram beneen bi mooy ñun suñu société suñu société kuñ fi xamal wàll ci diine rek mooy yéenewuñ la nga nekk musicien ndax lu tax mooy dañoo xam ni société bi nanguwu ko donte am na ñu mu ko nangul tey bu ñu delloo xel am na jamono yi yàgg ya même pas dix amoon na fi benn doomu kilifa diine boo xam ni dafa doon musique mais lan nga dégg dëkk bi di wax ñépp lañ cay toog di kaas ay mbokkam di wax di wax sa bàyyi xamut lii ba mu bàyyi ko kon jubluwaay mooy képp koo xam ne yaa ngi ci yoon bu baaxul suñu wareef mooy ñu jéem laa fegal wax li ñu mën wax ji nag c'est pour tout le monde valable na pour ñépp waxuñu ngir wax soxor wala ngir yéene kenn safara doonte am na ñu ma koy taxee sax dangaa soxor dangaa iñaan dangaa nàngam waaye danaa nangu wax yooyu ndax ñi ma gën wax nañu ngeen ko waaye yàlla mi xam li tax may wax xam na ni ñépp lañ ci yemale maa ngi ñaanal bépp waaye jur yàlla may leen njaboot bu baax yàlla may leen njaboot gu ragal yàlla yàlla may leen njaboot gu dëpp maa ngi ñaanal kii ak ñu mel ni moom yal na yàlla dëpp leen yal na yàlla dëpp leen yal na yàlla génn lii ci seen xol génne ko ci xolu doomu jullit yi bëgg a baax yépp allahumma hdina fi man hadayt wa afina fi man aafayt